Nous avons soxal na walu waxtani ñu tënkoon ci walu yoon euh, tay lan lañu mëna xaarandi ci bisu tay bi ah tay euh, liñ ci mëna xaarandi moy euh, travaux yi yi nga depuis quand même une semaine les parties prenantes mu la justice les magistrats les acteurs judiciaires directement concernés mais aussi la <clears throat> société civile ak surtout les justiciables les citoyens groupe euh, professionnels yi ñun ñëpp ñu daje waxtaanee pendant une semaine ci justice ak nan la war doxé ak lan moy jafé jafé ak nan lañ ko mëna améliorer donc tay on attend à ce que lepp ñun doon liggéey noonu tay ji ñu euh, formaliser ko ñu consolider ko mu nek ab document bo xamanteni ni président de la république nim ko bëggé won non lañ naan ko ñi nga xamanteni ni ñoo doon les membres euh, de cette Euh, de ce dialogue. jàpp nañu justice bi dina tëdd ñaaxanaay dina redorer te Sénégal boo confronté wak justice waxat waxati kan lañ ma mën a booleel mhm. da xam ne da nga am àq ak yelleef yoo xam ne yow moom nga àndal et que àq ak yelleef yooyu soxlawul ngay xam ni politique ak ay coow parce que justice pilier la moy tax économie am moy tax stabilité am moy tax état am fu état justice indépendante amul démocratie ak état de droit amul fa donc tey jii loolu lépp le organisateurs yi ak euh, di restituer buñ paré document bobu lañ wara jox le président de la république mu soog xol les réformes à engager euh, manam euh, proposition mbir la waaw xam nga jëmmal ko fay laaj yenn yi nga réviser constitution peut-être su dee d'accord nañ ci yenn yi buñ ñu bëggee euh, jël conseil cour constitutionnel remplacer conseil constitutionnel forcément da ngay réviser constitution mhm. yii dafay laaj assemblée nationale nga am fa benn majorité donc mais li gën a am solo mooy ñu juboo pour cette fois-ci mhm. sur les réformes loo xam ne incha allah avant <clears throat> mandat bi di jeex mhm. nit ñi moom dinañ ko mën a apprécier gis ni justice ci domaine yi am na ci changement te loolu moo ëpp solo si Bopam dafa proposer à ce que le chef de l'État demeure dans le conseil supérieur de la magistrature gis ay waxtan la yooyu yëpp ñun mënuñu wax le secret des délibérations ak des travaux Lolu amul l'essentiel proposition bu nekk genn na fi proposition yu nekk amna. donc nañ bàyyi ko ngeen soog mëna xam yan lañu japp ni mën na parti bu ñew da ngay indaale say proposition lepp lo japp ni mën na améliorer justice bien sûr dañ koy proposer mais c'est pas exclusif wala exclusif d'autres propositions yo xam amna ñeneen ñuko formuler ñuko gissé gisee neneen te loolu moo doon intérêt bi moy ñu am ay xalaat yu bari yu joggé fune ci acteurs yi ci société civile ci citoyens yi ci ordre professionnel donc lool lepp buñ ko dexeñé tay ji Bateko, je pense que dinañ ci am euh, inshallah lo xamni lenn rek ko muy justice. merci voilà donc vous l'avez entendu c'était Amadouba, Amadouba qui se prononçait donc sur.